mbokk yi nii bàyyi xel fu mën a nekk ci àdduna bi moo xam ñi nekk ci réew mi wala ñi nekk bitim réew tey bàyyi xel seen seen ba am solo bii mooy le grand secret wolof ñu ngi leen di waxati asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi dikkaat nañ ak yéen ci njariñ yu am solo yi ngeen indil tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci benn secret boo xam ne secret bayre la waaye muy secret bayre bu yéeme ndax baytu bordu la ak suyina secret bayre boo xam ne képp ku bëgg bayra boo koy def di nga am ba yéemul ci lool waaye nag maa ngi digal bala kay kenn def na nga fexe ba am kaaraange ba pare ndax bayra kaaraange da koy jiitu bala ñuy gën a sori ci secret bi dañ lay wax yow mi gën ci pass bi boo abonné gul ci seen bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te seen vidéo bi partage ko mu gën a yàtt ndax leen vidéo yi ni dugal fii yëpp ay vidéo yi njariñ la te njariñ nag moom nu mu gën a yaatoo ci la gën a da wax yow mi nga xam ne da nga bëgg def lu sét wala nga bëgg def lu xaar mo xam nga nek ci réew mi wala nga nek bitim réew da bëgg ko la defal ben ci ñaar yi man nga ñu contact ci numéro bi muy 77 684 28 28 wala nga contact ñu ci 77 668 28 28. bu dee da nga nekk Gambie ak li ko war nga contact ñu ci numéro Gambie bi mbokk yi faral di laaj garabi kàttan yi disponible laat na jamono ji ñu waxe yéen képp ku siitu rek man nga ñu contacter incha allah foo man di nekk di nga ci jot ci nim gën a gaawe <clears throat> mbokk yi dañu dafa fàttali bu gàtt rek ci njariñ yi nga xam ne garab gi di musxam làmboo na ko garab la goo xam ne garab la gu bari njariñ lool ñu bari xam nañ ko bu baax ndax garab la goo xam ne dafay yokku kattan garab la goo xam ne dafay dundal walax njaan garab la goo xam ne dafa yokk maniyu te ay njariñam yooyu mooy ci gën a néew képp ku seetoo mën nga ñu contacter ci numéro bi muy 77 684 28 28 foo man di nekk di jot incha allah mbokk yi tey secret bi leen indil mooy ayaxsabu zab anna al xubba munkatimun ma bayna munzajimin min huwa muttarim أعصيل لناس حب السحوات من النساء والبنين والقناطير المخنطرة من الذهب والفدة والخيل المزومة والأنعام والحرث ذلك متى الحياة الدنيا والله عنده حسن ما أب yi secret بي yéemee ngi بي دكي بكو خمنا يالا koo xam ne بايري dafa dogal nga bëgg bayre nga boole ak ak aay alquran bi nga bind ko cent quatorze fois muy xadadu jaamix boko ko bindee xadadu jaamix nga wut sunguf bi ñuy wax bu la wér nga ak wasur ak parfum bi ñuy wax kafor nga boole ko dika lal ah ba koy bu yéme ngi ni dé képp ko ko def de xawma lan ngay ñak way du nek bayré waye ma ngi digal ak bala kay kenn def da nga fexe ba am karangé ba paré ndax bayré karangé da kay jitu kon xam naa mbokk yi secret bi lañ amoon yéene tey partage ko ak yéen di wax ba ëllëg ñu dikkaat ak yéen ci beneen secret ci secret yu am solo yi ngeen indil wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf